doy na ci sëñ Tuubaa bu lool dañ Musaa Ka nee nañ Lamin moom lañ may siral masul xar baax na feese ba ni buur ay bàqaloon ci xam day woy te jànguloon arab te man taxaw bi te suuf moom man arab te man wolof gammal na gaa yi xam ne rijaal yi xam nañu dara jàmm bu dee jàllale muy safi jàmm nërëm nërëm di safi mbaam xanaa na xam ne bàyyi sëñ Abou Madiane xanaa yëngu si Abou Madiane sëñ Abou Madiana sa bàyyi boobu mu ngi fi dañu ne naa ko wax fépp dégg ngeen nekk ci présentation man ci ma jur ñaari tijaan bi man sama bàyyi mu xàttan la wala yàlla doon sama day tijaan la sama bàyyi tijaan sama famille bàyyi maa ci juddu di murit sëñ bi defal na la lépp luy dara te sëñ Abou Madiana sa mbokk bu baax moomu di sa rakki bàyyi man moo ko waxoon ci man dana yunni ci sama kër nay ba ma jamono dana wut nii bi mu duggee yaay di mag mu yàlla yàlla teg ko ci néeg bi mu toog te nuyu kenn daal di ñëw toog ci néeg bi sol sama yaay xamu ko waaye bi mu ñëwee ni ko sëñ bi na nga def mu ko ko ko la wax sëriñ daal mu ne ma ko nduru mu ne ko juumoo wala aboo mati reetaan soxna si am nga taw bi dinaa la dimbali yàlla xamal na ma ne am nga juróom benn doom ñëpp a faatu ci ndaw sama yaay bi ko wér lu ma am mbàkke ba yaakaar ma dem mu ne ko santal yàlla sëñ Bamba ba yebal ci jamono ba dimbali xeet bi dinaa la dimbali tey ci barke sëñ Bamba sama yaay tax ko ndox ma yaat ko mu ne ko waaye ana sa borom kër mu ne ko dafa liggéey mu ko bu ñëwee ne ko amoo mat yàlla fi ñëw ñax ma montul ba ne addiyee sëñ Tuubaa montul bambi moo yaay wéet ci ni ko jëlal mbàkke bal mooy ko ku yàlla ya parce que waroon naa wax man tiijaan laa bëgg moom wéet ci montre bi jox mu ne ko nañ ci boole ñaar téeméer tey sama yaay sama yaay ne ko léegi mu ñaar téeméer jox ak mbaaj gi nañ ko ci boole waaw dana naan imposé sama yaay jël mbaaj bi jox di tekk di ko dégg mu ne ko dina la dimbali kii nga ëmb dina dugg dina ci dox sama yaay ne ko dafa ëmb mu ne ko waaw weer yu manqué ay fan moo tax ñu waaye ci kanam tuuti di nga koy yëg jigéen lay doon nag waaye ginnaaw moom kenn doon góor rek ngay am tey dina am xam-xam dinañ dégg turam yàlla defal ko barke waaye sama maam lay liggéey seen Tuubaa mu nit sax def lay doon mooy man waaye am na beneen doom bu góor man rek waaw kon sëñ Ndeye ne damaa bëgg ngeen jariñoo tax ma nettali loolu man jàpp sëñ Tuubaa dund ko waxi man je suis un professeur d'espagnol dans les grandes écoles yàlla dimbali na ma ci espagnol daan naa ko jàngal tubaab yi ko mën daan naa jàngal espagnol tubaab yu nekk espagnol naa ko espagnol ba leen koy jàngal waaye doy loolu sëñ Tuubaa man di ci lii yàlla damaa dimbali ma jàng ñaari wàll yëpp ba ma ñëwee ba gis ni murid yàlla yittewoo ci tant yi mu mës fii génn tukki dem bitim réew neuf jours delsi ñu woolu ma ne ma absence yi day bëgg a bàyyi il faut nga ñu ay justification parce que yaa ngi te élèves yi dina xaar waaye bi sama censeur waxee loolu ba ne ma nag ah yow moom dégg naa affaire yu mujj yooyu nga toog nag loolu def ma xam ma ne ko man bàyyi naa jàng sama salaire yu weer woowu jël ko loolu laa teggee bàyyi salaire yi yëpp dañ gis ne que day bàyyi naa jàng naa dem nekk ci waaru sëñ bii ma taalibe yi soxlaa boo ko jamono nag ba may bàyyi jàngale defe naa boo ko jamono damay des ma baas ko liñ ma jox ci kër tëbul lu toll waxul waaye muy dama koy def ba may jàngale boo ko tax defe naa damay yëy ci waxu léegi dana ko waxoon ba neexal jàngal bee ñëw ba may jàngale mënuma mënuma dara waaye day réew ma neex ko waat te kenn condition la ko dul sëñ booba heure ba neex laay nelaw yeewu nekk ci liberté sëñ booba digal ay taalibe léeg-léeg nga daan fay weer nit ay ñëw nuyu ma jox ma ko léegi ci benn minute léeg-léeg nga lay jëriñ sax loolu fan maa nga Autriche maa nga Allemagne sa compte la mu doon maa ngi ciy dugal cinq cent mille un million appuyé Sëñ Tuuba maa ngi lay jox kayit bi nga appuyé Sëñ Tuuba maa ngi lay yóbbu ci wax appuyé Sëñ Tuuba mais kii Sëñ Tuuba amul ko. waaw loolu rek la sëñ bi sëñ bi noo ko jàpp dañu la lay jëriñoo loo ko def loolu ngay jëriñoo ci moom boo ko defee benn sëriñ daara bu toog di tàngale dafa mel noonu ci yow rek boo ko defee ni moo yor sa lépp la ji lépp doo am noo jàppee sëñ Tuubaa ni ngay jariñoo ñi ko jàppoon a raw ñi ko gëmoon a raw ñi ko toppoon a am tey lépp ñi ko defoon naaw leeg morom ñoo suuf dañ Musaa Ka nee na ñi ko gëmoon seexal na leen ña ko weddi woon suuxal na leen ña neexal na leen ba ñëw di neexal xam àlla kër jaama ngor ak ceddoog sëriñ buur mbokk ak i jàmbur ñëpp a kat jaaraama daal di am luy nit ku ñuul ak nit ku weex diggante askan wi dul jeex ku nekk daam nekk na seex mën a yowaa. Ah. jërëjëf yàlla yàlla faj baago yi yàlla lu sëriñ bi gën a dolli kàttan liggéeyam te doon moo dolli taw téema liggéeyam yàlla na yàlla defal wér defal ñu sutura nangu ñu sunu koor gën ñoo teg ci siraatal mustaqim waaye lu liggéey na dañ ci compte Serigne Touba Xaadimu Rasuul wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh